Ibra coach Cheikh Ibra Ibou Dieng ba mu coach bi jël le cadeau, wax nañu lépp té lépp la euh, dañuy particulièrement quartier en droit ndax té tay a waral bi ku xam quartier bi mu ngeen may ku xam quartier en trois nu mu bindoo nga xool ñi fi teew tey mun naa ne kilifa yëpp kenn desul seen kër ndaxte ki nga xam ne mooy Pape teew fi président du conseil de quartier ki nga xam ne mooy imam imam Diallo président délégué de quartier délégué de quartier président de délégué de quartier suñu pap Demba Fall nga daal di gis ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor sport ñoom ba Badiagne ak équipe bi xale yi nga xam ne ñoom ñoo leen ñi ngi fii suñu yaay yi ñi nga xam ne ñi ngi fii tamit mun naa ne xale yi nga xam ne ñoo yor le quartier ñoom ñëpp ñi ngi nii teew nga xam ne ko tey bés bu mag la pour Hann parce que doomu entroit moo waral li doomu entroit moo am ndam mais dama naan Hann 3 moo am ndam moo tax dañ leen di féliciter di leen ndokkeel ci lii ñu teew kàddu yi may jël nag dama koy jël ci touru conseil municipal bi yëpp ndaxte da ngeen ñu invité ma ànd ci ak délégation boo xamante ne Altine Sow adjoint au maire ngi fii Pape président commission sport Tam Niang sama chef de cabinet vraiment ax ñi nga xam ne moom nañu àndal li ma bëggoon wax nag lenn rek lu tuuti la mooy fu Football Club man personnellement damay remercier le président Lat Diop man musuma ko gis xamuma mais gis na sport gis jeunesse avenir bi nga xam ne te gis nañ ne dugal na ci bu a ñun doomu gis nañ ci suñu Cheikh donc transmettre ce message de félicitations, d'encouragement. encouragement di remercier kii di maa ngi koy tooñ moom wax coach bi ba wax ma équipe la wala daayira ku jël kàddu rek ma xam yiw gi ci et c'est important dafa am loo xamante ne jàngale nañ ko nee le talent c'est vrai mais la discipline le respect les valeurs kooku dafay loo xamante dafa am solo parce que tey loolu moo lay amener vers la vers le résultat bari na ñoo xamante ne mën nañu football mais bari na ñoo xamante ne aussi comme Cheikh parcours exceptionnel bi nga la am nga wax deug yalla commencé ba gis que avancement rek ngi waxtaan échanger neuf sélections en équipe nationale première sélection bi rek lañ ko remplaçant mais c'est parce que mi ngi donc Cheikh Ibra ngi encouragé bu gars yi di wax ñu naan ma non fierté en trois mané ne leen bàyyi leen wax fierté fierté en trois fierté africaine la dafa dépassé Hann dafa dépassé Sénégal légui Afrique la wax parce que c'est un champion d'Afrique Cheikh Ibra est un vrai lion en tout cas kontaan nañ dañ lay encourager di le féliciter vraiment mais surtout aussi fi may daanelee sama cadeau. moy les encadreurs du football ñi nga xamné dañ fi nek amé xalé parce que damay bañ ñun ñuy jaawaatle encadreur yi dañ leen di féliciter pourquoi ma leen di féliciter bu ñu équipe nationale sélection nationale ku ci nek da ngay ñëw ak sa melokaan Cheikh Ibra dañ ko identifier équipe nationale sélectionné ko parce que am une équipe bi ñu wara mais ci ñu ñu wara a composé dañoo jël ay talent am ay critères pour chaque poste pour chaque rôle mais Cheikh Ibra li nek ci mom équipe nationale li nekk ci moom fii la à la base ak football club et loolu c'est extrêmement important pour que nos encadreurs ñun en tout cas ñun politique bi ñuy mené ci fii mairie pour développer le football on veut le faire avec les acteurs du football Lat job, la muy def il le fait avec les acteurs du football bu ko keneen defee feneen équipe nationale Sénégal du amati problème mu sélection moy ben benen bi moy toujours ci sélection football Cheikh Ibra dafa wone nek dépasser nañu buñu né dañuy def équipe nationale dem jël ay xalé yo xamantane ne ña football bitim réew dañuy jël ño xamantane ne talent local nañu décomplexé dem championnat d'Afrique jël trophée delloo ci wat ke fi té mom la boy yi def donc lolu également dafa nek un élément bo xamantane élément de fierté la pour ñun ñi nga xam dañ ci nekk di mais surtout encore une fois les encadreurs góorgóorlu leen Madiagne am na lu mu wane fi sank loolu du théorie xalé yi ñuy tàggat fële Cheikh Ibrahima diar ci école de football wax nañ ko il y a 15 ans diar na école chez Bira Kër Bira ah ñu jigé fofu mu yéeg dem osé tay mi ngi ni équipe nationale et ëllëg il sera un grand lion donc Lolo, dafay faut xamante ne ki ko def du Aliou Cissé la Augustin Senghor la waaye ñii la encadreur à la base donc le football il faut le développer à la base donc Lolo, moi, le dernier message bi nous bëggoon délivrer féliciter ñi nga xam jël nañ initiative yi surtout lii dafay encourager ki nga xam ne ki nga li Cheikh mu xamne ne tay ñepp ñi ngi ci sa gannaaw fi ñepp ñi ngi ci sa gannaaw li gaay li wax sank dëgg la góor a bariwul yu dem ci mais lu melni rek moko meuna genné mom ak ñeneen ak ñeneen suñu yaay yi ñom ñepp ñu tok en tout cas félicitations encore contane nañ bu baaxa baaxa baax ma ngi sant gërëm encore toute l'équipe de Guédiawaye Football Club di leen féliciter

xam naa ni nag euh, du ñu nekk du ñu mën a nekk fii di lim ku ci nekk turam mais ku ci nekk na xam ne daal ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, aussi tamit di leen sant bu baax ci présence bi parce que euh, yombul nga bàyyi sa yiite yëpp ñëw nekk fii ndax jëmm Cheikh Ibra bi kase donc ñoo ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bi waaw di sant aussi tamit kilifa yi fi nekkoon yëpp am na ñoo xam ne dem nañ ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax Euh, waaw tàmbalee ci nu euh, sant bi nag euh, chef de quartier Pape Demba Fall ak imam Omar jàllo mais aussi tamit di sant monsieur le maire son excellence Babacar Meng waaw di leen sant bu baax a baax a baax di sant sunu waajur yi nii toog fi xam naa ni nag suma ma limee damay juum waaye maa ngi jël nuyoo bi teg ko ci loxo sama yaabooy Kine Ndiaye mu jàllale ma ko ci ñëpp ñëpp ñëpp waaw di sant bu baax mais aussi tamit di sant ñi nga xam ne euh, ba ma nekkee xale ba léegi ñoom lay àndal muy waa mbaaru Baye Thiam waaw ñoom moom mënumaa wax te duma leen tudd ndaxte dafa am importance ci encadrement jour ñi muy àndal loolu dafa am importance te ñi may àndal maanaam jàppale nañ ma bu baax a baax bu baax ci métier bi ma nekk ndaxte football moom ku ko ne ku ko ku ko xam bu baax xam ne dafa fiir am na yu bëri yoo xam ne bëggu ko te ñoom yàlla moo def ni fubal yi muy bañ ñoom sax nekkuñu ci muy ay affaire ay dem boîte wala ay yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci ñoom yàlla def na nekkuñu ci lool far yàlla nag mu yombalal ñu ko nag euh, donc maa ngi leen sant bu baax yàlla xam na ni ñoom dafa mel ni ñoo doon saan bi dañoo demee benn instant dañ ma génn sax ci groupe whatsapp bi ndaxte xam naa ni instant boobu sentir nañ ni que ni man euh, sama xol tooy na ndax gis naa seen message bu baax ku ci nekk xol la doon waxee ak yéene bi mu am ci man donc amuma seen fay yàlla xam na ni maanaam munuma munuma lottu naa ci ci ci sant gi xam naa ni lottu naa ci lool lool lool waaye daa xamal leen ni Cheikh Ibra daal mu ngi nii seen Cheikh Ibra la yéen waa Mbaada Badiam waaye nag rawatina waa Antrois euh, vraiment dafay rëy ci man su lii amee ñëpp ñi ñëpp bàyyi seen yite ñëw taxaw ci man loolu lu rëy a la ci man yàlla xamna lool ndate jëfuma lutax man ma mérité li man lool la jàpp war jëfaguma ko bok ndate man sama yene moy en trois ñu dégg ko fenen ak fenen waye nak rawati na en Bel-Air man man sumay wax sax duma wax ay en bel parce que taw ma mo bobu Ibou Laye dafa ma ci rectifier des fois mais man yarax moma amal yité à chaque fois samay publication sax damay bind boy yarax original ndax yarax lañuy représenter fuñ fuñ mëna nek équipe nationale sax mun naa ne gars yi xam nañ yaraax bu baax a baax a baax léegi ndax xam nañ ko bu baax xamoon nañ ko nag waaye gën nañ ko xam te loolu yëpp seen taxawaay kase la la fois passée dañoo dem pale benn journaliste dama fekk ci biir pale bi mu ne ma Cheikh Ibra kaay ma ñëw mu ne ma mais mbooloo mi la topp yow lan la koo wax rek mu ne yaraax Cheikh Ibra koo wax mu ne yaraax Cheikh Ibra donc loolu amuñu seen fay booy cag-cag yi maa ngi leen di sant ñoom tamit waaw sen sen taxawaay rafet na lol lol lool lool waaw maanaam kàddu yi dal ay kàddu sante la ay kàddu sante kase parce que li motivation de plus motivation de plus la man comme niko monsieur le maire waxee sank li ab sas la ci ñun day tax ñu gëna a xamaat suñu bobu waye tamit day tax ñu gëna ligéyat xamné lepp ne lépp lu ñoon def ben rek dañ ko wara a multiplier par 100 wara lu ko ëpp té ñi ni jar nañ ko ñi ni jar nañ ko waye nak ne seen xel dal bu baax te xam ne bu neexee yàlla sunu borom lépp li nga xam ne footballeur mu ngi koy am wallahi gëm nañ ne dinañ ko am ñun. loolu nag gëm-gëm kese la ndaxte lépp loo xam ne jour mu ngi koy am ñun am nañ ko jamono jii nii muy taxawaay bi muy ñaan bi muy lépp ndaxte ñii nii ku am ñii ñu nekk sa ginnaaw man jàpp naa ne amatoo leen loo war a tiit waaye amatoo tamit leen loo xam ne di ko ragal te incha allah bu neexee yàlla sunu borom lépp lépp lépp dina mat sëkk ba yàlla ni ñu ko bëggee. ñu defal mu defee lu ñu ko noonu donc maa ngi leen sant bu baax waaye am na koo xam ne mënu wax te duma tudd turam muy Modou joor Ndiaye Modou joor njaay kooku kooku su ma waxee ba mu jeex te tudduma turam man jàpp naa ne du gor ndaxte maa ngi moom dañoo yàgg te xam naa ni dégg na lu bari ndax man sama jëmm ji sama jëmm ji tax na mu dégg lu ne waaye dafa tëxlu gumba lu ndax man mii te je pense que résultat bi mu ngi ci kanam li du résultat bi de yàlla xam ni man pour man li du ben résultat bi inshallah bu neex yàlla suñu borom résultat bi ci kanam lañ koy gis mais di sante ñep suma limé rek suma nekké di livre rek dina djum ma ngi sante bu baaxa baaxa baax en trois yàlla xam ni dañ leen dégg fenen ak fenen mais yarax inshallah jaajeuf ok merci beaucoup. jere jeuf kontaan nañu bon suñu xel gën na dal waaw.